incha allahu boo ñu ko envoyé ci numéro bii di affiché di suñ numéro whatsapp dinañ la ko dugalal ci kàttanu borom bi alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo ci seen série maîtresse d'un homme marié di leen rappeler encore une fois que numéro bi mooy sunu service commercial mais nag numéro bi du numéro waa Marodi TV parce que jusqu'à présent am na ñoo xam te ni ñu ngi koy jël di woote wala ñuy message dañuy jàpp ni soit waa Marodi TV la ñuy waxal wala kenn koo xamante ni si acteur la ci biir série bi di maîtresse d'un homme marié waxoon nañ ko ci yeneen vidéo yi mais dañ koy rappeler numéro bi numéro waa lu xew TV la li tax ñu bàyyi ko fi mooy pour ñi nga xamante ni dañu am yu ñu dund bëggoon ko partager peut-être xëy na le fait que ñu koy partager ak ñeneen ñi dina am ñoo xamte ne dina leen yee dina am ñoo xamante ne dina leen jàngal lu bëri wala ñi nga xam te ne dañoo bëgg publicité di yëngatu ci wàllum njaay ak lépp lu mu mën a doon bëggoon am visibilité maanaam ñépp gis li ñuy jaay bu ñu contacter incha allah dinañ ci waxtaan ak ñoom mais encore une fois numéro bi nekkul numéro waa Marodi TV nekkul numéro waa maîtresse d'un homme marié numéro waa lu xew TV la alors tey bi ñu seetaanee épisode numéro vingt-quatre ba pare dafa am point yu ñu ci noote bëggoon ci waxtaan ak yéen def ci benn jàngat point bi ci njëkk ngeen baal ma ci kàddu gi mooy wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg day yàq lu bari ñu gis ko ci diggante Marème ak Jalika Marème dafa yàgg nëbb Jalika que ni moom day génn ak Cheikh alors que Cheikh boobu noonu yéen ñëpp xam ngeen ni frère Biram la ki nga xam ni moo nekkoon jëkkëru Jalika et ñu gis ni peut-être su Marème waxoon Jalika au début li nga xamante ni si am na xëy na tey ni mu ko meree nii du demee noonu d'une part aussi tamit mën nañ comprendre que Marème da doon ragal xëy na bu ko Jalika yégee mën na ko wax Lalla wala mën na yàq affaire yu bëri moo tax mu préféré garder secret boobu mais leçon bi ñu bëgg a tiire foofu mooy tey jii nii mooy nëbboo day yàq diggante parce que nëbboo su amee ci diggante rek ay dut day am dut yooyu noonu mooy jur manque de confiance te manque de confiance fu mu xas ba dugg moom diggante bu sincère mënatu fa am te confiance dafa bokk ci base yi nga xamante ni mooy dëgëral diggante donc soo amee sa xarit lépp looy dugg yëgal ko lépp looy def tamit nga wax ko moom aussi même chose su boobaa seen diggante manque de confiance du fi am te fu confiance am rek. yaakaar mën na am que ni day jëm kanam donc ñu bàyyi xel bu baax a baax ci point boobu parce que nëbboo day yàqu lu bëree bëri te ba léegi mën nañ jël beneen exemple ci biir série bi ci épisode numéro 24 moo ci diggante sàmba ak Marème parce que tey def nañ benn souvenir boo xamante ni mi ngi wane que sàmba dafa nëbboon Marème digganteem ak keneen doon siq ak moom ba far yàlla dogal doom juddu ca. mu nëbb ko lépp ba jour bi nga xamante ni si ni dafa waroon a xëy ngénte war a takk xale bu jigéen bi ci la koy door a wax Marème et jusqu'à présent bu ñu gisee loolu moom moo tax ba léegi nii Marème mënu ko ko baal c'est parce que nëbboo boobu am ci diggante bi moo doon loo xamante ni si jusqu'à présent Marème mënu ko fàtte te mënu ko ko baal parce que tamit neexul nga nekk ak nit nga am ci moom confiance mu def lu toll noonu bàyyi ba nga xam ni suba la war a ngénte suba la war a takk xale bu jigéen mu la koy door a wax donc lim ko nëbboon yooyu yëpp day tax day gën a métti ci côté pour mu mën a fàtte lu mel noonu aussi tamit dañuy gis ni souvent dans la vie ba am lu la dal te tey yow ñëwoo wax ko directement moom mu dox ba déggal ko boppam ci mbedd bi ci la koy gën a méttee que tey boo ñëwoon waxtaan ci ak moom donc point bi ñu noté foofu mooy nëbboo day yàq lu bëri parce que day indi manque de confiance te manque de confiance moom bu xasee ba dugg ci diggante ça veut que ni diggante boobu noonu. du avancé alors loolu moo doon première point bi ñu noté tey point bi nga xamante ni si moom moo ci topp muy dañu gis biram que mi ngi jéem a defaat ay effort pour jéem a récupérer waat Jalika avec tout ce qui s'est passé ak li mu waxoon yépp gis nañ ko mu ngi koy réccu et wax na ko sax moom ci biir kër bi mu koy wax c'était juste pour yaayam am lu ko neex parce que bi mu naan Jalika man dañ ma forcé woon ci sëy bi mais mosuma bëgg loolu dëgguwul woon ci moom comme ni mu ko waxe dafa bëggoon lu neex yaayam xëy na aussi tamit mer jàppoon na ko ba tax mu wax lu mel noonu moo tax toujours il préférable à chaque fois soo meree bu jël benn décision xaaral ba dal xalaat bu baax doora a am na ñoo xam te ne nag ñoom mënuñu calmer bu ñu meree bu ñu meree dañuy décidé lu leen neex dañuy wax lu leen neex après delluwaat di regretter. mais regret moom bu mu am day fekk jëf wees te parfois am na yoo xam te ni dootoo ko mën a dabu mukk sa àdduna alors li ñuy conseillé foofu ñëpp mooy képp koo xamante ni si da nga mer nga jéem a contrôler sa bopp xalaat ni tamit man nga wax loo xamante ni si nii suba danga koy réccu donc ñu ci bàyyi xel bu baax a baax dëgg la sax yombul nga mer ba pare di calmer wu en même temps ñu ko mën bëriwul mais kenn ku ne boo jéemee def effort. xëy na ni nga daan tànge soo daan mer dina wàññeeku lu bëree bëri. donc beneen point bi ci topp mën naa ni sax dafa xaw a laal tuuti première point bi muy ci wax lu dul dëgg wala di nëbboo mais bii nag ci cadre diggante jëkkër ak jabar day wax parce que tey sa jëkkër mën nga ko jox cër trop trop trop mais si tout toutefois nga xam ni kii def la commencé di nax kii def la commencé di wax lu dul dëgg. kii def la commencé di nëbb cër bi nga ko joxoon même bu lépp dañul tamit mais day am lu bëri daf ci dañ et loolu diggante nit ak nit la donte jëkkër sang la à chaque fois aussi tamit da nga ko war a mën a jox cër bi da nga ko war a mën a jox gëddee bi parce que quelle que soit la situation aussi mooy sa boroom kër mais dafa am ñenn ci jëkkër ñoo xamante ni si nii pour jox leen cër day jafe parce que lan seen comportement ñu gis ko ci diggante Cheikh ak Lalla gis ngeen tey ni Lalla waxee ak moom. ki nga xam ne ne dafa daan neexal naan la aljana di la wax wax ju neex tey mu dem ba di la yuux wala mu lay gëdd c'est parce que li nga ko wan moo tax mu mujj soppeeku cër bi nekkoon ci seen diggante mu dindi ko teg fële te loolu lépp li ko waral mooy parce que Cheikh da doon doxaan ba pare di ko nëbb lan la dem ba xamal ko boppam ba découvrir lépp mu leer nañ mooy tax lépp lu ko Cheikh waxati dootu ko gëm benn bi ci topp mooy cër bi nga xamante ni si amoon na seen diggante ñoom ñaar mën naa wax ni day deñ donc man dama jàpp ni diggante jëkkër ak jabar warul am nëbboo suñ bëggee diggante bi mën a neex mën a jëm ci kanam donte nag di doxaan ñoo sa jabar ni ko damay doxaan bokkut ci cër et en plus tamit dafa doon loo xam te ni si délicat mais man li ma gëm mooy comme may nañu ñu am ba ñeenti soxna tey boo nekkee ak sa soxna nga gis koo bëgg bëgg deuxième femme nga ñëw carrément ci moom ni ko dama bëgg a jël deuxième femme waxtaan ci ak moom parce que loolu am nga ci droit mais li bon kay mooy comme ni ma ko waxoon ci yeneen vidéo yi rek am soxna ba pare di ko ba kër ga dem di ànd ak keneen di dem ci àll bi di dem ay réseau di reeri li nga xamante ni tey jii nii boo ko jëloon def ko sa biir kër def ko ci sa njaboot am ci tuyaaba nga jël ko di ko def ci àll bi di ci am bàkkaar te bu la ci jàppee ëllëg tamit gàcce nga ciy jële alors tey point bi ñuy tëjee bokk na ci point yi nga xamante ni si waxoon nañ ko sunu vidéo bi weesu mais dañ koy rappelé waat muy problème mariage forcé parce que tey gis nañ ni joor ndekete ki ko doon topp noonu naan ko pour mu ñibbi boroom këram la te dañ ko forcé may ko ko loolu moo waral mu daw jóge seen dëkk ñëw toog ba pare nangootu fa dellu et que bu ñu dégloo biir wax ji am na fa doom déjà kon doom boobu moo fa am rek day metti pour mu wan ko ginnaaw mais ak situation yëpp ñu gis ko ni moom bëggul dellu ndax lan dañ ko forcé ba may ko koo xam ni xamu ko ba pare bëggu ko mariage forcé nag am na ci cas yoo xam te ni c'est parce que parents yi dañuy jiital ñoom seen intérêt que jëkkër ji am na xaalis wala mën na ma defal lii wala mën na ma defal lee am na tamit yeneen cas yoo xam te ne affaire de takk sagar lañ koy wax que bi ngay nekk xale takkal nañ la sagar diw donc parfois loolu noonu di nga ko def mu réussir parce que man mii gis naa ci ay ka mais des fois si tamit di nga ko def ñoom ñaar ñu dem ba màgg soit ñoom ñaar bëggantewuñ wala dina am kenn koo xamante ni si moom bëggul am na keneen ku mu bëgg genre parents yi dañuy def la tout ba ñoom seen kàddu rek mooy am mais parfois aussi tamit day baax ñuy soodaalee ki nga xam te ni si moom mooy seen doom parce que tey jii des fois di nga gis sax sëy boo xam te ni mbëggeel moo ko lal mu dem ba ci biir am problème rawatina sëy boo xam te ni lalu ko donc loolu moom ak quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci tas lay mujj te parfois am na xale yu jigéen yoo xam te boo leen defee lu mel noonu buñ ci jógee dañuy gën a am fit da leen di jaral ñu fàq sax dem seen yoon. lu doon sax xëy na lu leen gënal mais day dem ba dootuñu am pexe donc ñoom lu ñuy gis mooy daw rek sooy foofu yëpp ëllëg nag lu ko dal yow mi nga xam ne yaa ko forcé woon ci sëy boobu noonu ci responsable yi nga bokk donc ñuy bàyyi xale yi ñuy forcé pour ñu dugg ci sëy te fekk bëgguñu donc tey vidéo boobu lañuy indiloon di dellu encore une fois di tuub di jéggalu ñëpp ñoo xam ne wax ji ñu fi wax laal na leen lépp lu fi jub nag ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que jàmm moom matul di leen jaajëfal di leen jox di daje ci beneen vidéo incha allah